Kenkeyri AAD moo leen di may li ci yéenekaay yi. Yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf coowal mbës mi di massage Adji Sarr ak Ousmane Sonko bi wër àdduna tey la ko yoon di lijjantiwaat le témoigné nañu moo taxit Ndakaaru noyeetul dëkk baa ngi ne ñog ni ñu ko nemmee ko chaque fois bu yoon woloon jiital parti Pastef li ñu bari ci dëkk bi seenu fit du toog boole ceeki dëkk bi lépp naan tekk ñëpp di ragal fitna coowal suite boote li ñu war a atte mi ngi ñuy xamalit ne ba léegi kenn xamagul ndax Ousmane Sonko dafay dem ci audience bi am déet Le Quotidien ne ko awagul yoonu dem ci audience ba ci désobéissance judiciaire gi mu taxaw fa la taxaw ba léegi ndax ba démb ci ngoon génnul woon ca këram ga ci Sigicoor Walf Quotidien bind ci xëtamu njëkk ne Sonko soofantal na justice bi ab avocat moom Ousmane Sonko di maître Ousseynou Ngom mi ngi ñuy wax ci enquête dina kay ne Sonko jotul benn convocation ban moom Ousmane Sonko du jaar ak tànk Vox Populi nañu en tout cas muy moom Ousmane Sonko di Ndeye Khady Ndiaye mi moom salon bi Adji Sarr doon dàmpe Ousmane Sonko ñoom ñaar ñëpp ñoo ngi leen di xaar ci kanamu siis bi ci cité kër góor gi fii ci Ndakaaru benn dugub dafa njuuy alkaati bi bi suur soi moo ko bindee noonu ci xëtamu njëkk ba dañu xamal ne ñoo nga ci buntu këram toog di ko xaar waaye boobi ba léegi gisuñu fa luy rek Ousmane Sonko ñu gis ko moom Ousmane Sonko ci xët mu njëkk l'Observateur yéenekaay bi dañu wax ne fa mu taxaw fa taxaw ba léegi condition yi mu tegaloon gaañ ne buñ ko deful du dem tribunal ci la taxaw ba effort am tey ji ci audience spéciale l'observateur gis na ne layo risque la ci Ousmane Sonko ak ci kii di Ndeye Khady Ndiaye Sonko tuumay viol bi wax mooy fukki at jàpp ñaar fukki ati bu dee menace de mort ñaari at la ba juróomi at keneen ki ci des di Ndeye Khady Ndiaye li ñu koy tuumaal bu ko tribunal dëggalee bu ñu dóor ko article ak article bu code pénal bi at ba juróomi ati taxaw na ak alamaan ju dem ba yegg ci genn wàllu million risque dayo bi journal las gisal na ko Ousmane Sonko moom it ci boycotté gi mu bëgg a boycotté procès bi bu dee dafay boycotté procès bi sa aw ñooñam di les patriotes journal l'info mi ngi ñuy xamal ci xëta njëkk ne tàkku nañu ba dëgër jàttu ne socca taxaw temm ci taxaw seen waaji di Ousmane Sonko ndax nee nañu dañoo seetlu ne ak léegi kii di Macky Sall amul jenn yitte lu dul nu mu mën liquider seen leader bi Ousmane Sonko waaye loolee dafay sonal boppam rek gunge ba mu am ndam ngoonu ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février 2024 directeur de publication bu yéenekaay bii di yor yor di Serigne Saliou Gueye libération nee nañu ma nga jëm police tey ci yor yor ji waa sûreté urbaine ñoo ko convoqué 10 heures li waral convocation bi libé nee nañu mi ngi tukkee ci article bu génnoon ci yéenekaay bi jëmoon ci magistrat yi politique gu toppandoo gi waa APR nekkee l'observateur xëyee na ko ubbil yéenekaay bi imitation di toppandoo ci wàllu politique l'observateur tax ne nañu waa APR champion la ñu ci ne gaa ñi indi nañu F24 ñoom ñu indi S24 tek gaa ñi indi troisième mandat gën a wóor mu di aw doxalin wu amul benn njariñ boo xam ne ñu koy def fuutuñu ci dara lu dul lu neex Macky Sall bi ci mujj nag yéenekaay bi nee nañu mooy mbubb mu bula mi ñu gis Macky sol ko tax waa APR ku ci nekk ci ñoom dem nga wuti sa piis dagg ko ndimo ñaw la ko yére sol def ko challenge. Kinkeyri AAD moo leen doon may li ci yéenekaay yi